man ma bu ñu ma gisee léegi ñu ñëw. xam naa dama wax jàmm. waaw maa ngi leen waaw j'ai été arrêté tout gis nañu ba ñu dugal ma si oto bi. Mhm. parce que jaay doole la après par la suite ñu bàyyi ma. lu jàngat rek lu ñu ci mën a jàngat mooy dégg ngeen léegi léegi ministre de l'intérieur boobu lu mu wax dama jàpp ne naanagul ay garabam parce que bu naanoon ay garabam moom du taxaw wax lu mu wax parce que ministre de l'intérieur organiser les élections lañ la wax soo yoon nekku ci ku pare ak ku parewul pour pour nga xam ku pare ku parewul waa DG bu ñu déposé liste yi ba pare di nga xam ku pare ku parewul donc ministre de l'intérieur bu taxawee ne opposition parewuñu ça veut dire que déjà ministre de l'intérieur wane na fu mu far lu ñu koy waxal moom Jean na toppatoo wàllu intérêt mu xam ne ab gendarme la mu xam ne c'est un agent assermenté que Ousmane Sonko sale boulot bu mu ko bëgg a def la ak Diomaye na ko bu mu ko sax jéem a def parce que nous allons rester vigilants nous serons vigilants d'abord pour les élections la la baa leneen li mooy xoqatal bu ñu commencé xoqatal tey Lat Diop la démb Bah Diakhaté gis nañu notre frère Ahmed Suzanne ça ne passera pas parce que lan fii ay góor ñoo fi nekk fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fii ragal nekku fi une de plus parce que nag tey gis ngeen dispositif dispositif sécurité bu ñu fi teg amul kenn ku mën a taxawaalu euh, côté DIC pour soutenir Lat bu ñu ko teg pourtant ñun lañ doon wax ay dictateur lañ te pourtant ñun on a laissé la latitude on a laissé ñu wax seen soxla ñu wax seen xalaat ñu wax lan neex mais tey lan jàpp nañ ne ne dañoo tëlee jàpp nañ ne mënuñu jàpp nañ ne xamuñ fu ñu jëmee réew mi pour rek ñu mën a gagné législative dañ ko dañ ko dañ ko bëgg sàcc def ko ci ay njublang def ko ci ay tàppale jël ay nit nëbb leen jant bi loolu mooy dëgg le reste nag mooy je m'adresse directement à Bassirou Diomaye Faye le suppléant xaw ma la xaw président de la république mu xam ne dëkk bi moom lañ ko dénk moom la ñu voté voté lañu Ousmane Sonko la dictature que Ousmane Sonko veut veut faire régner dans ce pays là ça ne marchera parce que nag fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fi nekk aujourd'hui nous au niveau de la nouvelle responsabilité au président Amadou Ba tey président Amadou Ba nous a demandé donc lool il faut que xam ko la police va ronder ils vont venir ils vont faire tout faire on va pas parler bu ñuy takk la ñuy takk bu ñuy jàpp la ñuy jàpp comprendre nga dañuy wax nous sommes dans un pays liber nous sommes dans un pays démocrate bu neexee nañ dem jëli seen i seen i policiers indiwaat ko loolu mooy loolu mooy wax ci. c'est évident lu tax ñuy xaar ba élection jub ñuy woo Lat no dama ne non dama ne dossier mënut a gaawee noonu parce que IGE mi yor wàllu enquête yi. UGE mi yor wàllu audit yi mënuñoo def enquête nee nañ seen balaa moo pare en la war a pare il faut le dire. mais est-ce que du pôle parquet non non dama ne non pôle parquet final dañ koy transférer te dossier mënuñ ko jeexul te balaa audit jeex waa waa UGE dañoo war a woo d'abord la am ay questions yu ñu ko war a poser pour man damaa jàpp ne pôle boobu ay tappale la pôle parquet ay mbirum caaxaan la pôle parquet financier boobu ay mbirum jaay doole la lool mooy mbir loolu mooy dëgg c'est du banditisme déguisé le reste nag mooy. nañu bàyyi Lat Diop mu ñibbi këram nañu bàyyi Ahmed Suzanne Camara parce que Ahmed Suzanne Camara lu mu waxoon dëgg parce que newoon na président de la république du wax dëgg premier ministre du wax dëgg la preuve en président de la république dafa waxoon ne son premier ministre ira à l' assemblée le mu il a dissous l' assemblée le donc Ahmed Suzanne Camara am na dëgg ci ci kaw le président de la république ak ci kaw le premier ministre donc dama jàpp ne tey justice dañoo war a libérer notre camarade Ahmed Suzanne Camara amul benn ñaareel dossier da nga xam ñaareel dossier wax ma benn dossier bi Jérôme mooy kan Jérôme Jérôme garde corps il a travaillé pour nous tous man Jérôme c'est mon ami et j'assume Sniper c'est notre camarade c'est notre garde corps il a été dans tous les combats avec nous et nous devons le libérer du sàcc du bandi c'est ils ont mel na mbir mi na lan ñoom ay bandi la ñu woon ñoom ay délinquant la ñu woon sniper à protéger la république sniper à protéger tey li ñu ko mooy lan ñun ñun ñu nekkoon ak ak moom sniper deful deful dara il faut que ñu arrêté loolu. merci beaucoup Omar. merci beaucoup. merci. attention. te tegal na si ko moto bi. xaara xaara xaara dama yor ay micro. kay indi jë jëlaaleel boobu xaara xaara. fari ñoo vas-y c'est bon ah toogal micro ah. alors euh, Fary ginnaaw ban ko ban ban ko dàqee Omar Sow euh, dellu siwaat na dégg nga kàddu yi nga xam ni euh, yëkkati na ko jëmale ko rek ci arrestation ci convocation wu kii di euh, Lat Diop ak kàddu yi nga xam ne gis na ko jëmale ko rek ci nguur gi ana tey yi nga xam ni moom Omar Sow yi gis na ni moo commencé installé wu fii ci biir réew mi waaw euh, la moom Omar Sow itam dañ ko koy nangul ba mu mat sëkk ndax nit ku nekk ànd nga ak idéologie nit ku nekk itamit nga ak par moom yàlla def ni euh, wax na fa mu far wax na itamit la nga xamante ni moo tax mu teew ndax dafay représenté ki nga xamante ni mooy Amadou Ba di leader ci euh, nouvelle responsabilité moom nag ak Lat Diop bokkoon fa ñu nekkoon di euh, milité en tout cas pour Benno Bokk Yaakaar ba yàlla def tey ñu ber seen daara nekk ci li ñu ne ba tax na rek ay kàddoom moom du doon loo xam ne bett nañu euh, yëkkati na ko nag avec véhémence yëkkati na ko nag ak doole mmh. waaye loolu moom c'est tout à fait normal maintenant politiquement ñoom à chaque fois la ñuy daal di xëcc débat bi mais euh, la ma wax sànq rek je pense que fi mu toll nii nañu rester dans le cadre institutionnel rek nañu rester dans le cadre judiciaire jàpp ni ab sénégalais moo daan gérer ay deniers publics sénégalais boobu noonu waa Sénégal jàpp ni peut-être jaarul yoon wala boo gis ay mbir yoo xam ne war nañ ko leeral ñu daal di koy woo maintenant nag bu ñu ko woowee cela ne veut pas dire que encore une fois la ñu koy toppee moo ko def ndax la nga xamante ni tey jii ni mooy dossier yooyu la amagul benn boo xamante ni nee na dëggantaan ki nga xamante ni mooy euh, d'ailleurs sax rapport yi ñuy wax rapport yi dafay wax rek juste euh, li nga xam ne gis na ko ci lu baax ak li nga xam ne gis na ko te mu nécessité ñu daal di ci waxtaan. Uh-huh. maanaam nécessité d'enquête. te jamono ji phase boobu la ñu toll moo waral ñu woo kii di laaj sànq. am na si ñoom kenn koo xamante ni daal dina nangu kàddu yooyu la na effectivement c'est dans l'ordre normal des choses mhm. ba tax na rek dañuy déglu xaar la nga xamante ni tey jii mooy euh, en tout cas ay euh, jeexital ci euh, bile dossier ndax nag ki di Lat bañ ko wooye ànd na ak laykatam ànd na ak ki nga xamante ni mooy maître El Hadj mhm. nekk ki nga xamante ni mooy avocat am objectif bi mooy ñëw luñ ko laaj itam mu daal di si indi ay tontu ci bu ko mënee bu duggul tontu itam du tontu mhm. waaye li li warte wóor rek mooy fi mu ne nii accusé wuñu ko jàppuñu ko boobu du moins tëjuñu ko liñ fi nekkee rek mooy audition maintenant nag à la suite de ça am na possibilité ñu daal di ko fii téye loolu tamit mën na ne am na possibilité itam ñu daal di koy bàyyi mu dem ndax démb gis nañ koy euh, xëcc trop ci li nga xamante ni mooy volet politique bi d'autant plus que maa dégg ñu naan volonté politique la parce que gis nañu ne élection yaa ngi ñëw dañu ko bëgg a xañ mu bokk ci élection yi affaire yu mel mais ñu ngi fàttaliku rek yàggul dara kii di hmm. Ousmane yi ñu wees ni ko daal di teree ndax euh, ba ñu demee ba à la veille des élections yëkkati ay dossiers yoo xamante ni tey tere na ko doon candidat donc brandir li nga xamante ni mooy euh, argument boobu moom pour man c'est factice parce que tout simplement yàgg nañ ko fi gis te ñoom régime bi ñu àndaloon ñoo ko fi doon tëral ñun presse bi tey sax am nañu loo xamante ni amaana daanuñ ko am ndax gars yi mhm. négocier nañu ak ñun waxtaan nañu ak ñun ba ñu mën a ñëw positionné fi ñu nekk nii mhm. mais xam nañ ne il y a euh, mois ci ginnaaw neuf mois ci ginnaaw mënuñu ko woon am donc déjà loolu mbir la boo xamante mhm. a mooy la mise en cause mu daal di génnee rek mu daal di yëkkati ay kàddu wax ñu effectivement ci lan ak lan lañ ko laal di posé ay question mhm. mais tamit moom ban position la ci am vis-à-vis li nga xam ne mooy dossier yi exactement euh, Fary balaa nuy génn ci ci ci mbir moomu naam sax dineen si ñëwaat léegi-léegi euh, wala sax dineen si ñëwaat comme ni ma ko li euh, nga xam ni le ministre de l'intérieur amaloon na ko tey ak ñi nga xam tey jii ñoom ñoo di way li nga xam nag mooy wàccoo élection législative gis nga taxawaay bi nga xam ne direction générale des élections def baax baax a ñi nga xam nag ñoo di mboolem taskatu xibaar pour mu tëddee njaaxaanaay si euh, campagne électorale yi ministre bi euh, ministre de l'intérieur Jean Baptiste doon dajeek li nga xam ne mooy nanu euh, décret bi président Bassirou Diomaye Faye waxoon na ne attaqué boobu la décret mais tey danoo toog ak ministre de l'intérieur di ko xamal ne danoo war retirer boobu décret lan nga yaakaar ni moo waral li nu mel est-ce que ñoom danoo pareegul pour dem si élection ànd seeg li nga xam ne moo di parti bi di Pastef parce que ñu si bëri ñu ngi wax ni carrément euh, Pastef bu ànd bu ak li nga xam ne moo di ko jigi ba matul euh, dina leen duma duma gu metti ñoom nag tey jii ñu ngi sàkku ñu retiré boobulee euh, décret présidentiel nan jàngatee aussi taxawaay bi nga xam ni way ko jigi am nañ ko si wàcce élection présidentielle yi législative yi waaw loolu c'est juste qu'ils s'avouent faibles face à la <laughs> situation c'est simple <laughs> uh-huh. <laughs> da allahu akbar loolu moom ay téléphone boobu wax na heureusement tojul heureusement donc bon je disais tout